nañu fii tey parti démocratique sénégal yi ci jiital Saliou suñu frère Saliou Dieng mi nga xamante ne moo yor wàllu structure parti bi mu doon loo xamante ne nii président Abdoulaye wadd dafa sàkku ñu ñu jaay pour ko maanaam parti bi ñu institut maanaam ñu mën koo yeesalaat 96 euh, ba léegi parti bi kenn yeesalu ko ca boobaak léegi ay at la kon war nañoo yeesalaat parti bi ba ñu mën a xam département bu nekk ak région bu nekk ñan ñoo fa nekk ndax loolu day dimbale nit ñi pour ëllëg ñu mën a taxawal ab. mais aussi dana leeral ëllëg bu ñuy tànnati ay député du ñu am problème mu tànn su ñu waree tànnati ëllëg ay conseil wala lu ñu mën a doon ëllëg dana yomb tànnin wax ndax danañu xam kenn ku nekk mooy kan. kon tey jii suñu frère Saliou ñëw na ak équipe bi mu àndal bi ñu ñëwee yi tamit population Touba bi yëpp génn nañu teeru ko dalal ko. ndax umpaliwu leen ne ñaari fédération moo am fédération Touba ak fédération Mbacké tey jii fédération Touba ñoo daje suba yitam invité waat nañ leen ndax suba fédération Mbacké ñoo war a daje waat ndax euh, ñoom deux jours lañ fiy def loolu moo nekkoon euh, li nga xamante ne mooy tey li ñu fi indiw woon euh, te mënoon naa ne sax dun ci lii waaye nag fu ñu teew côté boobu danaa ci wax en tant que député en tant que président groupe parlementaire yorenu Macky Sall bi mu yoree Sénégal ak léegi li ñu gis mooy njuuj njaaj alalu réew mi te leen lu ci nekk mën naa leen ti indi ay preuve bu ngeen jëlee tey li nga xamante mooy licence de pêche yi ñëpp gis nañu ne dañu ko pasas pasare bu ngeen jëlee li nga xamante ne mooy licence yi nga xam ne mooy pétrole bi ak gaz bi dañ koo pasas pasare ndax tey jii Sénégal bépp barilu pétrole bu ñu jaay Sénégal li muy gañe mooy 10 pour cent ci benn baril kon loolu yàq euh, li nga xamante ne mooy njëriñ mooy ressources yi nga xam ne askan bi ñoo ko moom yàq ko mënta weesu loolu boo jëlee ci yoreenu gouvernement tey ministre am yëpp ku ñu ci mësul a tudd ñëpp tudd nañ leen ci njuuj njaaj kenn mësul a gis ministre u Macky Sall wala ku bokk ci nguurub Macky Sall ku ñu tiital wala ñu tëj la mëstaam te dama jàpp ne loolu ak njubadi mënta weesu loolu ndax dama jàpp ne président Ablaye Wade bi mu fi nekkee ñëpp gis nañu ay ministre ay directeur ay responsable politique yu mag yu amoon doole ci seen igox gox ku mel ni Baye Lavone ku mel ni euh, Modibou Diop ak ñeneen ak ñeneen bi ñu defee loo xam du noonu yoon dafa daloon ci seen kaw ndax li ñu yor muy alalu réew dañ ko war a saytu teg ko ci dëgg moom nag bi mu ñëwee indi na fi OFNAC indi fi yeneen waaye boobaag léegi kenn mës a gis ku bokk ci affaire kuñ mas a kun koo xamante affaire bi mas nañu koo jàpp wala ñu laaj ko wala ñu wala wala wala ñu topp ko ndax euh, li mujj rek nga xamante ne mooy affaire inondation yi bi nga xamee demandé na suñu partie muy parti démocratique Sénégal sant nañ ma ma def ma demandé ñu amal euh, benn euh, euh, li nga xamante ne mooy ñu woo li nga xamante ni mooy képp ku masa yor alalu réew mi wala nga masa saytu ci wàllu inondation ñu woo leen assemblée nationale pour déglu leen bi nga xamante ne wax nañu loolu ñoom dañoo bañ dañu ne li ñu amal daal mooy mission boo xamante ne day wër rek pour gëstu waaye duñu déglu ministre yi bi ñu demee forcé leen ba mu sës am na ministre yoo xam ne dañu ñëw wuy si ku mel ni Mansour Faye bi mu ñëw bi ñu ko laajee daf ne moom yorul benn dossier mënul tontu préparé wu ba léegi dellu si waatul ndax loolu li waral mu sañ ko dama jàpp lim ne goro président Macky Sall ñi ñu laaj ñëpp amul kenn koo xam ne indi na lenn lu leer kenn moo ci indi woon dara koo xamante ne bi ñëwee bi ñu xoolee kayit yi ku ni ki nga xam mooy directeur bu ONAS bi mu ñëwee li mu ñu woon mën naa leen ci jox comme tey Touba am na ñeen lu mel ni boo demee Guédé am na benn euh, kiiwu ndox bu ñu fa def bu ndaw loolu rek ñu ngi ko facturé 300 millions 300 millions bëtu ndox boobu rek nga xam ne boo jëmee kër Cheikh Bass fi daan taa ndox loole ñu fa defal 300 millions lañ ko facturé amaan na beneen boo xam ne mi ngi nekk côté Ndamaat 300 millions bi ñu ko laajee mu ne 780 7 euh, milliards 800 millions fare na ko Touba def na ko ci Touba ci wàllu inondation ñu laaj ko mu ne liggéeyu inondation du feeñ lu ñu def ci suuf la ma jàpp ni yéen askan wi bu ngeen déggee loolu ree war na leen a jàpp ndax 7 milliards 800 millions moom ñëpp xam ne ñu ni dugul Touba ci wàllu inondation ndax euh, boo jëlee tey deuxième conduite bi nga xamante ne moo jógee Kër Ñang rek jëm Daaru Rahman ñi ngi ñu ko facturé plus de 2 milliards loolu rek dafay wane dañuy pasar pasare lu réew mi nun dañu gis ne bi mu ñëwee ba léegi rek dara doxul yàq na réew mi tey tey jàpp naa ne askan wi réccu nañu lu ñu ko doon falaate suñu bëgg-bëgg mooy ñu amal élection mosuñu d'accord mukk ci ñu reporté ay élections parti démocratique Sénégal mësul d'accord ci loolu communiqué yi ñu mujj a def yëpp loolu moo mas a nekk ñun suñu taxawaay suñu samoon sañoon élection ñu amal ko respecté date yi nga xamante ne ci lañ ko war a amalee loolu moo mas a nekk position bu parti démocratique. waaw garantie bi ñu leen mën a jox mooy incha allah yàggatul dara bu soobee yàlla président Karim Wade dana ñëw liggéey bi danañu ko wéyal mooy fexe ba jaay carte yi. fexe ba Touba lu mu néew néew ñu fexe ba contrôler au moins comme ni ñu ko bëggee suñu bëgg-bëgg mooy quatre-vingt-quinze pour cent yi wala quatre-vingt-dix pour cent bu population bu Touba ñu fexe ba jaay leen carte ak département Mbacké non jàpp nañ ne loolu rëwuñu ndax tey li feeñ fii tey tey lañ lan la woon tey defuñu woon du woon meeting tey dañ doon amal rek ab réunion pour waxtaanee mbirum carte yi ndax su fekkoon mitin la dañ koy yóbbu ci ca boulevard ba wala ñu yóbbu ko ci terrain bi comme ni ñu ko daan defee mais dañoo woote rek uniquement pour joxe information lancement njaayum carte yi pour ñu jox leen information yi loolu rek la woon te gis ngeen tey mbooloo mi tey kenn amul foo toog nit ñi dañoo taxaw loolu dafay wane ne parti démocratique Sénégal fa mu nekkoon démb ak bërki démb toujours foofa la ne day wane ne aussi ndaw ñi ba léegi président Karim Wade lañ bëgg moom la ñu sopp moom la àndal te bis bu Karim Wade ñëwee incha allah danañ leen woon ba ngeen xam ne Karim moo fi nekk incha allah